Assane Assane kaay ñëwal ñëwal ñëwal kaay <coughs> gis nga Assane Assane a ngi nii xam nga lii mooy wane ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay moo ni moo nekk ci oto bi yàlla xam na ko waaye lan la def wàcc vitre bi na ma mbay ségil ndigaal walaay ni ko wàccal walaay walaay parce que moom xamante nañu dëgg la moom dañu ànd di liggéey hmm. man moom ak Jimi Mbay ah du tey ak ak Ousseyn Ndiaye hmm, dëgg loolu du tey dëgg yàgg na hmm, dëgg la ci Madison bu njëkk bi dëgg la mu nekk un frère et eh, moom laa wax nit ñi ma ni leen. Hmm. Euh, fami Marène. waaw Thion. Hmm. Assane. Hmm. Euh, Mapendak. keneen ak keneen. Rue 23 la nekkoon. walaay dëgg la. fa ñu dëkk. waaw kër ajaratu nday Michel la. walaay dëgg la. yaay Mor Dior Seck. waaw ñu jàkkaarloo waaw. ñu jàkkaarloo dëgg la. ah da ngay jéggi tali rek dugg. da ngay jéggi bi rek dugg. walaay dëgg la nekk kër Alaaji Yinde Fall. waaw 27 dafa yàgg. yàlla na ko yàlla xare amiin amiin amiin yàlla moom moom àjjanaam yàlla na ko sunu borom teeru amiin Babacar ci barke Seydina Mohamed amiin li ma gis fii nag moom ah? yàlla dañ koy ñaar yàlla bu ko cat jiitu yàlla bu ko cat jiitu que euh, comme li may wax rek hmm? ku am ku lay jooyal hmm? waroo jooy waroo jooy te boo fekkee ne yéen ñi nga xam ne sax yéen a gën a jege hmm? mun leen a jot ci moom ndax doomu aadama yi cofeel ah. ak euh, mbëggeel gu ñu am ci moom. ah li ko ñaan yàlla rek yàlla. seen jataay bi ma mujjee fekkee grand théâtre keroog da sukk ci ay ci ne ko grand yow laa am yaay sama xalifa yaay sama lépp. grand waaw mooy may wax xam nga nit ko yar Babacar mooy lépp yar la hmm. jàngal la métier hmm. Ah, hmm. def ci yow it nag lu mu deful ci kenn nag. am na am na vide bu bu moo tax moo tax ma ñi Sénégal ñàkk na. Ah. àdduna ñàkk na ah. mais man ñàkk na. man ñàkk na trop nag ah. yàlla xam na ko Amin Babacar Amin Babacar. yéen presse bi tamit yéen presse bi tamit merci beaucoup. Assane merci beaucoup naam. ndax ñi nekkul ci réew mi waaw Petit Frère waaw. ñi ko jot. waaw teel koo jot presse moo ko waral. Eh, kon yéen dañ leen koy jaale. parce que leer na ma ne ñu ci bari ci yéen mës nañ ko dégg micro. et eh, di ñaanal doomam naan ko yàlla na ko yàlla jox xolu muñ te mu yeggali. amiin amiin ak sagoom amiin amiin famille bi it. amiin noonu moom laa wax. waaw noonu la noonu la la yal na ko yàlla xare. amiin waay amiin waay Babacar soo ngi woon ci biir. wallaay gis naa ah. Youssou gis naa Youssou ñoom gaa yëpp man dama yeew Babacar ñoom ñëpp. yéex naa ko yéex xew. Ah? doy na waar yaa ngi dégg. noonu man de nii sama téléphone gis numéro Youssou. Mhm. ndeke woon na ca 11h. Babacar yow yow la ko war a jaale yow tamit nag nit ñi koy jaale ah. noonu ñu ko war a jaale dëgg la kon yëf yi ñun la rek a merci beaucoup Thank